oustaz si kon la jox jox son doyam yi waaw léegi nan déglu jox son doyam mi nga xam ne moom ko alxuraan mu am lu mu tari ci alxuraan yi soxna si Njaay dañ koy sargal sox ab daal da wax soxna Ndey Anta Cuun ñëpp yaay daal ji leen bokk waaye léegi nag ab tàmbali rek incha allah déwén am na ñu ñëwaat ak kan sono roqeetu si waaw damay lim yi nga xam ni ñoom la ni décoré moom lay lim nii ci kàddu ak sono ndey tin yaayu daara ji nga xam ne moo ñuy toggal gudde ak bëccëg ndekkeeg réer añ moo ñu koy toggal mu soxna ndeetul mooy yaayu daara ji sax ab nag moo doon jëm lii rek da da ko doon jéem ngir ba koo def waaye incha allah taala ku ci am wàll bu déwénee sa wàll dana ñëw kon soxna Yamy bismillah ah alquran yàlla ji moo mel noonu alquran daa diis nagam yàlla may na la sens mu nekk sa benn jéem a la jaayante rek nga tari ni yu sii parce que li nga muñ moo ëpp tey ay waxtu rek moo si des li nga muñ moo ëpp tey kon lañ jéem a jaayante rek ñu tari yu siikumullahu fa tatafaddali maskura la fadda fuuka wala kasra asna bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم مثل هزل سيعين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن لم يكن لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها يوصي بها أو دين يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعويهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون طه ما أنزلنا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقي إلا تذكرة لمن يحسي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض wa ma baynahuma wa ma tahta sare wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa allahu laa ilaha illa hu lahu lasmaa'ul husna wa hal ataaka hadiisu muusaa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبس وجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاعلع عليك إنك بالوادي المقدس طوي sadaqallaahu mawlaana al-aziim. suuratul furqaan. bismillaahi rahmaani rahiim. tabaarakallazi nazzala al-furqaana alaa abdihi liyakuuna lil-aalamiina naziiraa. allazi lahu mulku as-samaawaati wal-ard. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يملك لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه هو أعانه عليه قوم آخر فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأسيلا sadaqallahul azim allah yubarik fiik allah yubarik fiik barakallahu fiiki wa jamii allazina shahidu hadha alquran masha allah ñu ngi kontaan lool di sant yàlla bu baax maanaam li nga daj alquran laa bëgg a xam ak alquran li nga daj bu ma ko laa bëgg a xam xamu tax xamu tax ma koy laaj bi nit ñi dañ ma war a dégg xam ne alxuraan ci boppam dafa am fu mu toll loolu laa koy laaj ngir nag ñiy jàng ci nii mbaara bii ñu jàngale alxuraan nekkuñu ñu ñu jàngale dañoo la loolu benn message bu may jàngalee ndax mbaar bi dafa métti te jàngale nit du nekkul lu yomb ba léegi léeg-léeg mën na laa jàppale noonu te fekk na doon noonu fekk jàng moo demee noonu loolu doogu laa doon jàllale ngir mu xam ko léegi ma la wax ne la alxuraan ji ma koy soo ko bàyyi mu bàyyi la soo koy bàyyi mu lay bàyyi ko ko a wax ne la neexee ba juróom ba juróom ñaar loolu laa lay dégg alxuraan bi boo ko bàyyee rek mu bàyyi la loolu laa lay dégg boo toll dinañ ko wax ñetti sib bu amee temps ba am temps doo ko def juróom wala juróom benn loolu laa lay dégg yéen gone yi su ngeen bëggee am li lay am am def leen ni mu def loolu saa boo xëyee del del del del del del del nafar dégg waaw boo mënee jëlal kaamil bi gis kaamil bii ñu la jox mu ngi loolu la lay soññ bu ko def ab décor boo boo àggee bi su set del ubbi di jël jukki di ko jàng dégg nga loolu day tax sa sa mokkal gën a rafet day tax nga gën a miin alxuraan day tax nga gën a xam alxuraan mbootum alxuraan da lay gën a dugg loolu laa lay dénk moom na sama xarit la fu ma gisee ci daara ji dafa may kot sama xarit la soxna Ami nii kon maa ngi koy ndokkeel di ko félicité waaye di ko encouragé ci li des incha allah laylatul xadru xayru min alfi shahr tanazalul malaikata wa ruuhu fiha wa ruuhu fiha israab min ndax am na ñu ma jàkkaarloon ñu nga xamante ne ni tey su lii amee ñoom la muy soxna Yaasin Njaay doomu aadama nag moom matul moo waral lii maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm di sant ñi nga xamante ne ni maa ngi bokk ñoom liggéey bi si daara ji muy Cheikh Abdoulahad ak sëñ Fallou si surtout sëñ Fallou si man mënuma kaa fay lu may yàlla mi nga xamante ne moo ko mën a fay mu fayal ma ko wallaahi laasim yooyu képp nga xamante ne rek euh, alaaji moo taala Ndiaye sa way ju la maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm parce que man lii may def nii ci daara ji nii sooy xool man man mënumaa fay alaaji moo taala Ndiaye ndax am na fu ñu jaar metti woon na trop tiisoon na trop tegoon na loxo si ma nit doon na ma dimbali di ma jàppale di ma yedd di ma tette wallaahi xanaa du nu fi nekkul moo tax ma di ko wax sama dëgg rek laay wax waxe ma sama bakkan képp koo xamante ne nag wëj sa wëjur la rek maa ngi la ciy sant di la gërëm daara ji moom nekk gi moom rëccu ma ko wallaahi xanaa rëccu ma ko lii ñu ma wax loo nii sax mën na ma wax lu ko wante nag deesu la may lépp nga jël lépp. moom man moom mënuma leen a fay moom yàlla xam ne ne mënuma leen a fay surtout Baye Laat jiite ne de wante nekkul jiit bu nga xamante ne day fel nit wala day yàqal nit defu si leen jiite na dina la jàppale dina la tette dina la dimbali te man loolu rek doy na ma am na fu ma toll fu nga xamante ne nii nag du mënumaa wax lépp waaye si nekkul woon moom wallaahi la si ba ma gisee ba ma gisatul alaaji moo taala njaay su ma nekkul woon si loxoom seen leneen lay nekk yàlla xam na ko parce que ba fii ma toog di waxe yow nii ci jafe-jafe rek laay nekk yàlla xam na ko li bi ma jógee ci Baye Mor ñëw ci moom moom moo ma tette su nekkul woon moom ci leneen laay nekk te yàlla moom sàkkul doomu aadama te du ko teg natt métti na ci man nag waaye génnewul loxoom si man pare naa toll fu nga xamante ne nii su nekkul woon ak moom ci leneen laay dugg wallaahi laa seen yàlla xam na ko maa ngi koy sant nag sant képp koo xam te ne bokk nga ak moom mi seen mag yi taxaw naa ma jërëjëf mënu ma ko fay ndax ñoom ñëpp dañ maa def ku nga xamante ne nii dama bokk ñoom ndey ak te loolu mën na leen cee bañ a fekk mën na leen cee bañ man moo taxit man lu ma def ci ñoom rek xeb naa ko wallaay xanaa attan naa nag man lu ma yor ak lu ma moom ak lu ma am ma def ko si ñoom yàlla xam na ko maa ngi leen di ñaanal yàlla yéen a xam fi ngeen bëgg a yegg yàlla na leen fa yàlla yeggal barke Seydina Mohamed barke alxuraanul karim waaw ñu jublu ñu jublu la ci sargalee loolu yëgal ni alxuraan ci boppam moo la sargalal boppam dafa am yu bari yoo xam nit da koy def tax te moom defu ko ci coobare boppam yàllaa ko koy def loo jëf ji da cay bokk dama bëgg soxna yëpp ngeen sargal ko na ngeen ko sargal waaw kay soxna yëpp na ngeen sargal ndeytin mii ku ko sargal yàlla dina la sargal waaw loolu amuma ci sax ama kii xaar ma yàlla nañ jóg sargal ko kenn ku ci nekk ci yéen yaa waroon ñëw ci daara ji def la muy def defoo ko moom mu la koy defal ba noppi ànd ceeg muñ ndax daara ay mbir mbiri xale yombul ku ko weddi rek xam nga sa njaboot li ci def nañu ñëw sargal soxna Ndeye Tine nañ ko sargal waaw bi daara ji ubbee ba léegi moo fi nekk kenn mësu fay nekk moom bi daara ji ubbee ba léegi nag moo fi ne muy metti moo fi ne ja am na jamono boo xam ne sax të tëddin wi dafa daan xat mais soxna Ndeye Tine ne fi man dama ko daan sa yërëm tëddin wi da daan xat lool ndax boobu daara ji dégg ubbi mat laay bareegul tëddin wi xat lool mu koy muñ toog fi nañ ñëw sargal ko nañ ñëw sargal ko ku ko sargal yàlla sargal la ku bëgg yàlla sargal la doxal nga ñëw fi nga sargal Ndeye Tine أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يستني له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا wa وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله العظيم njaatige itam kon sa teewaay itam lu ñu rafetlu la luñ ci ko gërëm di leen sant seen teewaay si bés bi di dellu sëriñ euh, Mossi di la xamal rek kii nga xam ne mooy sa doom di suñu doom di sëriñ euh, di Abdoulaha ku yëg nit la yara nga ko ba cité bi yëpp lu jox cër lépp loo xam ne xew na si si si internat bi day ñëw ba sama kër waxtaan si man ne ma yow fii yaay kilifa cité bi yow yaay sama kilifa. fekk ak suñu xalifa bi nga xam ne sëñ Modou Ndiaye di sant Assou Ndiaye mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ di jigéen. di sant nag sunu rakk ji di ñaan yàlla yàlla saxal ko fi yokk barke bi yokk doole ji alhamdulilah bi mu ko séer bi mu ko yàlla xiiree yoonu siraatal mustaqim jërë ngeen jëf mi ngi leen di sant amuñu seen pay jërë ngeen jëf yàlla nañ ko fi teewe ay déwéni déwén yokk ba yëg na yokk ñu ngi koy tudd tubaarkàlla ku macha allah. baax na waaw. ay ci wëlbatiku ko. ay ci macha allah tamit tubarkalla. ay ci photographe bi. ay làmbaay. macha allah jërëjëf jërëjëf. taxaw leen sëñ sëñ Modou ñëw. macha allah jëlal waaw photographe bi waaw. ay ci. billahi min asheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim maa ngi nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi ci bâche bi di la jox sa yéeguwaay bu wér a wér te nag may ne damay def cant cant bu wér a wér lii dafa neex te it nag faw ñu delloo njukkal ki nga xam ne moom mooy baylaat ndaxte macha allah bu nu jullee ci sang-sang yi moom ci wàllu boppam dañ koy beral mention spéciale ndax lu tax ndongo yi tey li mu def ci ñoom ñun waajur yi sunu xol dafa sedd guy may wax nag ci turu soxna yi ndax soxna yi macha allah ren seen liggéey rafet na lool lool lool ci daara ji ndax am na taxawaay bi ngeen taxawee te faw nag ñu wax ko ma bëgg nag incha allah ci kàttanu yàlla déwén nañu def lu raw lu ñu def ren ren moom man soxna Roqaytu Si bëgg naa lool ci yéen waaye damay na déwén nañu dolliwaat ndax ñun amuñu lu dul daara ji amuñu lu dul alxuraanu karim te nag bu ñu amee ñi nga xam ne dañu tëyul sunu njaboot te yàlla rek a tax ndax lu ñu leen di jox doyul dara saa su ne bu ma duggee ci paneel bi ma di ko wax ndax jox sa doom ñu di ko jàngal di ko di def alxuraan ca moom di ko jàngal diineem di ko jox mu lekk di ko jox mu naan di ko jox fu muy tëddee te it nag di ko yar ci li nga xam ne moom mooy siraatal mustaxim kon kooku ñooñu mënuñu leen fay ñun fayuñu dara waaye lañuy def mooy nañuy gën a laxasaay ñun soxna yi di gën a dooleel ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu doom yi muy ndongo yi la mën ren ñu ñaan yàlla sunu borom déwén incha allah ci kattanu yàlla ca neneen la ñuy ñëwee kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant. macha allah ak kaamil alquran bii sëñ Moustapha ak sijaada ak parfum itam ak kurus. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke alquran jërëjëf macha allah jërëjëf kàddu gi yow tam. incha allah nga feeñal sa yéene rek ndax mënul ñàkk itam incha allah bala ngaa toogaat ko jot nga ba pare. Jonn sëñ Gumban Jonn nee na mi ngi sant mbooloo yëpp di siyaar ñëpp ci turu sëñ Modou Ndiaye mi nga xam ne mooy taaw Baye Alaaji Moor ci turu soxna Assu Ndiaye mii mi nga xam ne mooy taaw Baye mooy taawam bu jigéen ak soxna Yacine Ndiaye mii. nee na sëñ Ngomaan Jond nee na mi ngi seeral mbooloo bi nii képp ku bokk ak alaaji Mor sa xol set na xolam set na ndax nee na moom ñoom amuñu ku dul alaaji Mor moo leen yar lu nekk ci ñoom moo ko ci def sant sëñ Mursi mii. nee na ñoo ngi sant sëñ Mursi mii di waajuru gone yi. ndax moo tàmbali woon ak moo tàmbali woon ak bay alaaji Mor. waaye eggale ba nag. waaye yeggale ba nag. ku masaana ñëw ci alaaji Mor. ku masaana ñëw ci sëñ alaaji Mor. soit nga fekk sëñ Abdoulaye. wala nga fekk sëñ Abdoulaye mii. te booy dem fa nga koy baax. booy dem fa bàyyi. mu dégg góor gu lool. mu dégg ak bay alaaji Mor lool sëñ Abdoulaye. sant ko gërëm. si bay alaaji Mor sant sëñ Abdoulaye gërëm ko. nee na nag ci turu sëñ Modou Ndiaye mi muy wax. nee na ñoom dañ ci am ñaari cër. benn tànk bi sëñ Thierno ndax benn tànk bi sëñ Thierno Diouf Lambaye la. bi ci des di El Hadj Mor. bi ci des di El Hadj Mor. sëñ Cheikhouna li jomb ko nag. mii li jomb ko. ndax bi muy jëkk ñëw fii. ndax bi muy njëkk a ñëw fii. dama jékki ni ko nan dem rek. sëñ Gomaan da ne ko sëñ sëñ Cheikhouna nañ dem rek. daam daara ju may dem. daam daara ju dem rek. mu ne ko jógal ñu dem. boobu ba léegi ay at la masu ko tardé. boobu at yu yàgg la te masu ko tardé. moo tax lii ko sëñ bi defal. moo tax lii ko sëñ bi la defal. ku ko mérité la. la. jikkoom moo rafet ndax jikkoy sëñ Cheikhouna moo baax te li koy li koy te liy firndeel loolu xool ñaar doomi sëñ Thierno fi yendu ñaari doo ñaar doomi sëñ Thierno Diouf ñoo yendu fii tey ak ay ay doomi boppam moom mi ak ay doomi boppam moom mi loolu lépp jikkoy boppam loolu lépp jikkoy sëñ Cheikhouna ju baax moo waral loolu am moom daal suñu xol sedd na sëñ Ngomane nee seen xol sedd na lool seen xel dal na ndax ñun Baye Mor rek la ndax ñun rek lañ am lu nekk ci ñoom Baye Mor moo ko ci def ñi teew ak ñi teewul. ñi teew ak ñi teewul. ñëpp benn lan. ñëpp benn lan. Adama Ndiaye ngi nii. Adama Ndiaye ngi nii. su ma limee damay juum. su limee day juum. ay doom ay doomam daal la fi ne. ay doomam rek fi ne. ak i jarbaatam ak i jarbaatam. ak i sëtam ak i sëtam. ak i gorom ak i gorom. ñii fi teew. ñii fi teew. teewal nañu fi ñi fi teewul. teewal nañu fi ñi fi teewul. ne bu ñu doon dem ba minuit. nee na bu ñu doon dem ba minuit. duñu doyal. lu ñu doyal ñoom dañuy toog rek. ndax lépp bay alaj morom. nee na kon yàlla na ko yàgg teewee. te noo ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa ku fi teew ku ne. suñ borom faj say aajo. defal la tawféex. borom bis bi nag attan na ko alaaj moo nee na borom bis bi nag attan na lépp. waaw te yi a gis asaka yi li nga war a gis yëpp daal barke Sëñ Tuubaa moo la xam loolu. foo mu na sëñ Mourou foo mu sànni ci kàddu. kenn mi nga xamante ni bii tey mooy kilifa ci kër Alaaji Mor ndax moom mooy jar jarbaatam bi ko sësoon rëkk Alaaji Mor bakkale ñu ko. ne bu ngeen ma gisatul def leen ko muy seen jawriñ ñu def ko muy suñu jariñ boobaak léegi nag rëccuñu ci dara lu xew lu ne moom mooy jiitu mooy dox mooy nas mooy nocc mooy defar lépp ba lépp tegu ci yoon suñu jëm fu ne moo fay jiitu moo tax ñu jiital ko tey jii ci turu njabootu Alaaji Moor yëpp ci tàmbalee ci soxna xarit mi nga xamante bi mooy soxnaam su mag soxna maam Faati Mbàkke soxna Satu Ja ñoom ñëpp ku ci ne tey loxoom ñëw na ànd ak ñun ci li nga xamante ne bii moom lañ di ci barkeel bi ay doomi Alaaji Morit yi nga xamante ne bii moo moo leen jur ñu waa Mbéyeen sëñ Fallou Bey sëñ Mor Bey sëñ Abdou Bey ñoom it ñëpp dañoo dugal seen loxo ci biir li nga xamante ne bii moo jëm ci li waa kër Alaaji Mor di joxe. doom yéeg sët yeeg ñëpp ku ci ne joxe na barkeelu ñu boole lépp teg ko ci loxo ngu man jonn fas ne koy jébal sañ Abdou laat si ngir moom mënuñu koo fay wax fa dëgg neex yàlla waaye ñàkk loolu yëpp it dañ koy delloo sëñ Modou si ndax lépp mooma ndax moom ku ne xam na ne xale yi boo leen gisee li nga xam kan mooy sëñ Modou si ndax li yëpp moom la moo leen yar moo leen jàngalal boppam jox leen jukkoy boppam ba ñu mën a taxawal lu mel nii te mu mel nii defu ci dara te lépp moom la moom it moo leen yëkkati jugalaat leen birkal alaaji moor xam ne alaaji moor doy na ko ci lépp moom it doy na alaaji moor ci lépp ndax ñu bari jaar nañ fa di jàngal alaaji ndax moom li sëñ bi doon wax léegi ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci kuy jàng alxuraan ne di berceau ba ca tomb ba mm. alaaji moor noonu la nga xamante ni noonu la taxaw woon mm. ndax moom ba ni muy bis bi nga xamante ni mi ngi dem hôpital sëñ bi sëñ Abdoulaye ñëw na ci bis boobu doon ko jàngal si kon moom loolu yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ca la nekkoon te loolee bi mu gisee sëñ Moti mi mu day ko ci sëñ Moti di ko jàngal dem ba ci yàgg jotam mayetu ko ko mu ne ko naa la jox sama doom joo xamante ne bi dina ma remplacer ci loolu ñoom ñaar séq nañu loo xamante ne bi ñoom ñaar rek ko xam ñun ñi doom ña xamuñu ko li tax mu jël daara ji tudde ko ko it xam naa ne ala alaaji mor mënu koo fay waaye mooy mënut a fay alaaji ñoom ñaar ñoo seq loola kon nag ñun mënuñu koo sant lu dul dañ koy ñaanal ci barkeb alaaji mor taala njaay moom mais lii ngumban doon wax léegi ne ko lii nga gis asaka la gisagoo dara ñun de gëm nañ ko gëm nañ ne lii ab tàmbali rek mm. waaye dina àgg fu kawe njortam am nañ ci yaakaar am nañ ko borom bi sant nañu ñëpp ñëpp ñëpp di sant nag beral sant soxna Yaasin Njaay moom it lii bu taxawee loxoom a ngi ci ndax moo sëñ Abdoulaat ñoo àndoon di ko dox ba lii taxaw kon nag ñu ngi koy sant ci mu xam bëgg-bëggu baayam ànd ci ak sëñ laat ba ñu taxaw lii ba tudd ko di santit soxna Roqaya moo nga xam ne def noonu def ma ndax li ñu fi wax dégg nañ ko waaye mooy bu melul nii day jaaxal ay mbokkam foo bokk ñu ne kër sëñ Alaaji Malick nii rek la war a mel ci alxuraan kon nag ñu ngi lay sant di la gërëm di sant ñi fi teew ñëpp xam naa dama bu ma ku ma fàttali dama jumbaay sant naa ñëpp daal bàyyiwuma kenn ndax dama xat te koor la ñu nekk mënumaa guddal waaye lépp daloon na ko sëñ naa moo ñu jiital sant nañ ko bu baax. muy tawfeex ju rëy kenn xamul fu yam